wa sallama taslima yowmal jumuati liya la ko tedd ki wax moom moom bisu àjjuma loolu li ñu ciy dégge mooy ni mu moomee àjjuma noonu la moomee gaawu ak dibéer ak altine ak talaata ak àllarba ak alxamis alxamis li koy waral mooy la mu wax ni waa jaxani bil bishri kulla layli maha wa ataba nayli ak la mu wax ni waa jaxani bil xayri kulla yawmi kulla shahrin wa aqudu qawmi tey la fukki fan ñaar ci Shaaban ci àjjuma ji mu wax ni jamaa alil jaamihu yowmal jumuha mbooloom ci bisu àjjuma cig tànneef di ko yàlla tànnal yonent bi tànnal ko ko dadul yem menn mbooloom àjjuma ab cëram daf cee wét waaye ci bisu àjjuma ji di fukki fan ñaar ci Shaaban lu ñuy baaxe sunu bopp di baaxee mbokki jullit yëpp mbokki senegaal yëpp gis nañ fi jamono tolloog yi xew ba ci continent bi ba ci sunu réew mii di senegaal ay wàll yoo ngi fi ba tey ay catégorie wàll yu yu bokkul waaye catégorie wàll yu catégorie bi njëkk am na ci ñoo xam ni ñaare dañuy gedd gedd jamono ndax wàlliyu bu fekkee dafa kamaal saa yu bëggee jóge fii ngir dem barsàq bu ko sàkkoo donte àppam jotul itam dañuy décréter waaw ngir xëcc ko ngir àppam jot am na wàll yu am daraja yooyu yooyu nag ñaari li koy waral ay xew-xewi jamono yoo xam ne du leen meex am yooyu xew ci jamono yoo xamante ni bii du leen meex ñaari moo tax ñuy gedd mm-hmm. nekkal ci li ngay liggéey ba ñu nekk ci leneen day am yuy xew ci jamono yoo xamante ne bi am na catégorie wàll yu boo xam ne dañoo minoritaire nag bari wuñu waaye ñaare dañuy gedd àdduna dañuy loolu tax nag ñun ñi dul ñun ay wàllu yu di ay dong rek ñun ñu war bàyyi xel bu baax ci suñu mode de vie ni ñuy dundee ci suñu quotidien ngir ci diggante comportement ak attitude ak i jëf ak i wax am yoo xamante ne bii day jóge ci ñun di bawoo ci ñun luy tax ñoom ñu gedd àdduna waaw maanaam waroon na dundaat juróomi at wala juróom benn at nga ni nañu ma ko defal juróomi fan mbaa juróomi semaine ngir bëgg a gedd àdduna bu ko defee ñu décrété ca xasal